sur le sur sur le papier donc euh, ASC zone de tir mom vais gagné Le euh, verdict est dañ ko tranché en première instance au niveau de la sécurité zonale Nous euh, ñu user seen droit d'appel au niveau de la sécurité départementale sécurité départementale aussi dans le dan mais dañ fi gis bu mel non bo xamante ni match bobu ñun ñëpp sétane nañ ko. Mm-hmm. muy ñag peul ak HLM. seen match bi bi mu jeexee am na ay rumeurs yu daw ba ñàgg pël ñoom it defoon appel def lu mel noonu. mais bon ñun ñu nekkoon ci terrain bi ñëpp ñun ñëpp dañoo jàppoon ne HLM ñàkk na mais bi ñu demee ba topp affaire yi dañ ko delloowaat HLM ni moom moo euh, appel boobu HLM moo ko gagné woon te c'est c'est c'est la même chose comme li kada yi def nii. non ba ne laa même chose gis nga les cas. Euh, non fraude la rek. jàpp moom jàpp la rek. mais euh, yi bokkul. non bële fraude la mais biir fraude la. waaw mais fraude yi bokkul xam nga tax ma ne la bokkul. Mhm. Euh, gis nga zone. Euh, si instance yëpp à part moom moo topp juste si ASC euh, zone déjà moom yoru archive. Mhm. tey ASC buy déposer ay licence da ngay dem nga déposer jël sa bordereau euh, bind si say licence déposer licence au niveau de l'ODCAV ODCAV téye bordereau yi acheminé ko au niveau de leur cave am quatre volets ñom xam nañ ko quatre volets euh, licence du joueur bu nek quatre volets la benn bi mom la ASC bi téye mom la joueur bi di présenter au terrain benn bi day dem euh, ORCAV benn bi dem ONCAV am bo xam day dem ba fédération dégg nga euh, bordereau dina am lu nekk ODCAV mais amul benn archive boo xam lay des au niveau de la zone léegi ñun boo amee supposons bu ñu ne Demba fraude la ñun ñu ne lan lañ ne fraude la supposons ñu ne Demba euh, est licence bi mu fubale du bosam wala du turam wala yooyu ñun dañuy téye licence boobu arbitre bi da koy téye déjà bu dee maintenir nañ euh, kii bi an jox ñu ko ñun ñu basé si def lu ñuy wax ordre de mission yóbbu ko selon le cas à l'ODCAV à l'ORCAV ou bien à ñoo ñu ñom ñoy def recherche bu ñu defee recherche génnee ñu licence bi nga xam mom lañu incriminer def ko suy enveloppe plus fermée suñ ko defee sous plus fermé yónnee ñu ko loolu bu ñëwee nag euh, commission bi toog moy ñima doon wax sànq CQRP ñu ubi enveloppe bi lire réponse bi nga xamante ne moom la ñu secrétaire administratif ORCAV ONCAV wala ODCAV envoyé suñ ko liré mom su ne ah kii de koy jiiñ amna su boobaa ñu xool teg si lan la si wax ñu appliqué ko su ne amul su boobaa tamit ñu ne non fondé kon ñun si loolu la ñuy joué léegi nag euh, comme boo jëlee bu ñaagapal HLM bi ngay wax euh, bi mu amee ñun bi ñu àttee en première instance selon résultat yi ñu jot la ñu àttee. mooy HLM ngeen joxoon ndam li. mënuñ si woon daaneel HLM. Mm-hmm. ñaagapal def appel. parce que euh, verdict bobu satisfait ko woon mu dem au niveau de l'ODCAV ODCAV def ay investigation mom tamit mais dafa topat zone si même àtte bi mm-hmm. ne li mu sukkandiku mënu ci won dan HLM. Mm-hmm. euh amna benen information bu ñu dégg que ni bo défé appel il suffit que nga yor xaliss bo tuufee gars yi ci souf sa affaire day bax waaw léegi affaire bi amna touf nak man man nekkuma ODCAV. nekkuma ODCAV non mais yéen dañ leen di tuuf président nag. ku la ku boo gisee kenn ku la mën a ne mos naa toog ak Cheikh Gueye ma jox ko benn 1000 francs pour mu bàyyi ma sax ma dugg biir terrain rek andil ma ko ñu waxtaan ñu ko def confrontation man la ma xam laay wax la ma xamul duma ci wax te ñi ma séqal liggéey yëpp ñi ma séqal liggéey damay wax sama akulaay tàllaa sax la ma gëm fekkee gu ma fu ñu koy defee léegi nag man toujours ni su ma ko waxee lu yomb la rek des fois sax dañ koy wax sa arbitre arbitre dañ leen fay dañ leen jënd ma ne waaw nit ki bu amee cinquante mille pour fay arbitre yow bu la ko jaralee fay ko cent mille ah ma arbitre su ma marché bi boo amee arbitre bi ñu arbitre sax xaw ma ko bu marché bu amoon 15 heures heure bii nii ñu am marché 15 heures xaw ma arbitre ñu des fois il faut ma dem ba terrain ba arbitre ñëw ma soo a xam ne kii mooy officier. kon man déjà man duma ko xam xaw ma ASC bi nan la koy xamee ba mun a corrompre arbitre benn euh, au niveau de de de instances aussi c'est la même chose mais fii nag Sénégal la lu nekk dañ koy wax ñoo ngi fiy jiñ nit lu nekk du ma défendre kenn mais man la ma xam laay wax tey Cheikh Gueye tey boo ko doon jox sa un million mënut a daaneel ñaagëbal parce que amul kayit bu mu xaaral ma wax rek amul kayit bu mu mën a daaneel xam nga tax même suma sukkandikoo si yaa ma neex wala maa ba daaneel ko.

tuufaate wu ma. dégg loolu leer na kuy nag léegi nag nax dem fa ñuy tuufe mu tuufe fa waaye daal des fois nag lu ñuy wax yàlla rek xam daal yàlla rek a xam euh, du ma incriminer kenn du ma wax lenn ñee ne ñoom ñoo tuuf bu ñu fekkee mais aussi danaa la wax dara tey euh, li ñuy wax toujours euh, les textes sont là ku def loo xam naka su noonu am na fu ñu war a mun a jaar ak yow yow bu dee demb am na loo xam te ne def na ko te mu wóor la ni li teguwul si yoon jaaral fa nga jaar ak moom. point barre deuk bi amna na mais amna des cas c'est-à-dire le mouvement navétane est une euh, est un mouvement qui est peut-être autonome mais aussi il faut nga xamné il y a des cas qui xam dem na ba ci justice ñu def ko des cas civils ñu dem atté ko tribunal parce que am na ñoo xamante dañ leen atté au niveau des instances du mouvement mais ñu gis ne dañ leen lésé ñu def am ay preuves leer nañ ñu dem au niveau de la justice juste bi atté parce que aussi c'est ay kayit nga koy rek jeexna na gis nga ni ki lay sa ak sa yëleef ya koy xéxal sa bopp ba mu jeex. nit ki mënoo kaa nit ku nekk sa jub te nga xam mais mënoo leen kii par force Sénégal yëpp dañu war a jub wala ñëpp dañu war a jub des fois aussi c'est des soupçons parce que tey da may ne supposons euh, benn benn équipe mais équipe ba lay wax loolu mais moom si boppam moom xam na ne fraude na xam na moo gën a ba man du man rek bokk ma ci moo ko gën mm-hmm. sàcc ba pare boo rëccee c'est problème da ngaa sàcc da ok des fois ça peut nous filer sur les sur les doigts do gis wala ay ah, bi ngay jongante du gis mais buñ la jappé nak saa way nga nangou ne da nga doon sàcc dañ la japp té da nga doon def lo xamante ne du yoon te en dehors de ça il faut que les gens prennent conscience que li ma doon wax sank que y a des assurances qui assurent les compétiteurs te jour bu football sur le terrain mu gañu fa te amuloo licence wala licence Banque nga ko footballoo valable ben assurance de couvrir. te su boobaa responsabilité civile yëpp yow yaa koy porté bu si demoo yaa koy faj ak sa xaalis bu si ñàkkee bakkanam dañ lay topp te dañ lay tëj lu leer naa ñu laa la wax parce que mën nañ la si tëj parce que tamit su boobaa ñun bu ñu si ñun dañuy vérifier licence ne ah kii de amu fi licence bu valable wala ñu vérifier ne après vérification licence yi valable kon man ku nangoo jël risque boobu noonu te xam nañ ne terrain football ba si niveau international y a des personnes qui le terrain il y a des risques il faut que ñu bàyyi loolu man sama soxla ay jours euh, euh, euh les structures limité wul le nombre de joueurs bu la nexé nga lijjanti sans licence pour sa ASC ndaw boo gis ne mën na football amna na lu mu la mëna jëriñ mën na andi demal nga defaral licence légalement su nekké ci beneen ASC démissionnel ko mu ñëw nga defaral licence bu mus ta nekk si ASC defaral licence en bon et due forme tant que yaa ngi compétir andil 18 joueurs ñepp am seen licence yu valable na beneen équipe bi porter réserve ba feuille bi fees sa yoon nekku ci kenn du la fenn musuma dégg ku ne dañ ko daaneel ci licence bo xamante valable na te valable euh, euh, ñu daaneel ko ci donc nañ fexé ba suñu ki di jub mais nawetaan aussi dafa am lu ci boleté aussi il faut que ñu bayiko moy mooy njublañ bi ak njuuj njaaj dañ ci bok parce que ka ngay ne dañuy touf xam kay touf ñong koy di mais mom lamu def mo ngi satch te aussi sàcc baaxul njublañ baaxul luubal baaxul.

muy Daaru Salaam ñoom ñi jël euh, coupe bi daaw euh, dégg nañu ñoom coupe rek lañ leen jox joxewoo woo enveloppe joxe dara ak ñoom li ñu daj ci ci ci final bi loolu moom lu leer naañ la ba léegi nii ñoom jotaguñ dara coupe rek lañ leen jox an seen enveloppe. waaw li nga wax euh, dëgg la en partie su ma nee en partie buñ ne joxuñ leen dara ne joxuñ leen dara ndax. bi ñu paree c'est vrai sur le terrain coupe lañ leen jox mais ñu paré comme ñom ak Pikine dañ waron dem en phase départementale am na ñu yëkkati jox leen kon lool waron nañ ka tudd ça c'est une chose deuxièmement nak taxul ñu teggi ñom lañu wax mais en réalité en général bo fubalee final dañ leen da ngay am trophée muy coupe ak des fois peut-être ben enveloppe financière bo xamantene ben benn la bo xamantene ne da lay topp mais lol dégagé guñ ko li tax final da biñ ko organiser on l'a organisé un peu sur difficulté ku ku ku subir les com euh, suivre les compétitions da xamné da daaw suñu compétition c'était en dents de scie parce que dañoo xex daaw ba commencer am benn terrain buñ clôturé ñu def final ñu def fi première saison match final bi tass ñëpp dina li tax mu tass grille manque de guide de protection la ñu ne ren bu naree compétir faw ñu am guide de de protection ñu waxtaan ak commandant commandant bima ma mo dafa ñëkkone ne sax du fi am ñu dem waxtaan ak moom ak sous-préfet ba trouver des terrains d'entente zone moo jël moo moo jël ci xaalis looy ay bari ay ay ay ay ay barrières encercler ko terrain bi te dañ ko luye woon yëngu leen di ko fay uniquement pour fexe ba nawetaan mën a am parce que commandant bi waxoon leer na terrain vague ba amul grille de protection ba amoon mille éléments du ko mën a sécuriser te wax na dëgg dañ ko siy fekk si ñun tamit suñ tay kattan ñu jéem benn loolu c'était des moyens financiers yu ñu dégagé en plus te jëlé ko won ci suñu bir subvention ak recette yi doon jóge terrain ça c'était une chose motax biñu dem ba yegg final zone amatuloon kees caisse bu mën fonctionner am na si yenn compétition yoo xam sax euh, cadet pour mu yegg il fallait que ñu jëlee si suñu poste dara appuyer ko la commission des finances pour mu mën organiser les compétitions cadettes L'ordre moo est état financier de zone biñu dem euh, final aussi euh, le maire de la commune aussi nek suñu partenaire privilégié de euh, biñ ko gissé tamit euh, comme partenaire privilégié donc ñu né mom moy suñu parrain privilégié euh, d'office pour la coupe biñ que ko gissé ñu waxtaan ak mom d'accord ak mom mais peut-être que bi euh, peut-être euh, occasionnel la woon bi ñu ak ñom bima biñu échanger échangé peut-être man bima ak collaborateurs le PCF ak le trésorier par message rapidement parce qu'il fallait que ma jox euh, maire ben information euh biñu recoupé lolu si la ñu né en fait on avait un budget de je pense 1 million non de 800, 850 000 sama jëmm dama bañ a xaw a jëm suuf sax su ma ko bindoon wax lu leer euh, ñu jox ñu jox manam benn chiffre parce que dañu comme préparer ñu benn budget pour final instant bi ñuy gisee te tamit jàmpoon na mané nañu sukkandiku ci li amoon daaw parce que li ñu defoon année précédente rafetoon na il y avait assez de récompenses pour les arbitres pour la gendarmerie pour la Croix-Rouge pour les joueurs meilleur buteur meilleur fair play ainsi de suite il y avait beaucoup de récompenses machallah allah te loolu maire moo si appuyé woon ñu né bon buñ sukkandiko ci budget boobu mën nañ defaat lu mel nonou mais malheureusement chiffres yi ñuy jox instant c'est des chiffres erronés manam budget coupe du maire lañu ñu jëloon ko ak budget CNP bi maire de loolu jox ñu loolu bi démé demee ba commencé engagé dépenses yi si lañu ñu gis ne bu ñu demee si sens ba organiser won daw daaw bëggone yépp du mot te en dehors des trophées et récompenses il y a les frais d'organisation de la finale sonorisation bi tribune yi bâche ainsi de suite ainsi de suite donc euh, enveloppe financière bi ñu jotoon mënatuloon génnee loolu mais li loon ñàkk mooy trophée yi ngay andi ak les frais d'organisation ñu génnee ko loolu moo ñu xawoon tënk léegi nag ñu ne suñu demee ba toog ba def suñu bilan ba xool situation bi si la xool parce que enveloppe aussi amul leen fenn fi ñu ko fixé mën na nekk 10 000 mën na nekk 100 000 mën na nekk 500 mille selon les moyens nous ne bu pas le bilan Nous avons ba loo fa nekk ñu nous nan les ASC finance nous avons wax HLM euh, ak es Salaam mais zone de tir ak avons euh, fait nga en catégorie senior mais HLM ak zone de tir aussi une enveloppe Ce sont les finalistes cadets. Mm-hmm. mais président comment vous di parce que vous avez ci organisation dañ la avant pendant après. donc pour moi, après finale vous rek yéen war ngeen mën euh, xool li ngeen am yëpp kenn ku si ne ngeen jox ko li mu li mu ci am mais bor bi yàgg na de ba nawetaan a ngi bëgg a ñëwaat. d'accord léegi euh, xam nga déjà bu ñu jëlee texte rek texte dañ la ne yow boo ne war nga xool xool mooy supposons tu fais un bilan après les manifestations mais les bilans bilan dañ la ne boo xoolee texte dañ la ne en début de saison la def bilan mais man sama gis sama gëm-gëmu bopp wax naa ko keroog au comité directeur moy man bu saison bi jeexee rek ñu def bilan su ko defee dinañ xam dinañ teunk si li ñu jóge xam sa lu ñu jëm ku nekk di nga dem avec quelque chose de clair et net dans ta tête mais malheureusement peut-être pour des raisons un peu difficiles différentes on n'a pas pu le faire bon ñi ñi nekk si comité directeur bi ma toogee ak ñoom expliqué naa ne xam nañu ce sont pas des raisons yoo xam mën naa ko évoquer nii parce que aussi euh, euh, euh, ni ñu ko waxatee la la vie privée d'une personne et autre du si espace public lañ koy dévoiler par respect donc on avait quelques gàllankoor yoo xam moo taxoon mënuñ ko woon def biñ ñu demee ba mu xóot nag ma ne ah béy wéy na mbuus fu mu nekk nii donc te nit ñi tasaaroo nañ ñii dem nañ jàngire ji ñii jàngi ji nañ ainsi de suite il fallait que ñu xaar ba début de saison ñu def ko maintenant. Euh, suñ paree loolu dañu dama ne woon soit ke zone bi dese kees goo go xamantene mën na ci génne enveloppe bu am solo ñu jox ko les ASC so amul aussi subvention yi di ñëw zone si bopam dina jël ci li nga xamantene mom moy subvention mu jox ko les ASC mais du bor. non mais bu Daaru Salaam bor la président. non du bor parce que li ma lay wax amul benn texte bu lay ne ASC bu gagné dang nga koy jox temps. mais ASC bu dem final ak li muy ci final. amul benn texte. Ce déjà c'est pas euh, euh, contractuel. les les les final mais dama lay xam y a des gens pour moi am il faut que je ay enjeu jeu. mo waral ñu jël des même pour de dépassionner un peu fexé nañ comme ni la première saison ñu wut équipe fair play gagner meilleur joueur récompense ba nga ku sentir sa président président président déet taxawal président yaay président zone mhm. xam nga laaj bi lan la mhm. équipe bu compétir ba dem final lan nga am texte lan lañ wax ni mom nga am amul ben amul ben texte bu len ko dem final lii nga am yeen bu len neexee sax du ngeen joxe coupe kon mais ñi ngi def ay ay ganjël fi wala ay ay ay ay ay potu meew ak yi kan président nawetan nga wax de waaw déglu ma wax la dama la bëgg expliquer ni manam tay coupe du monde

de compétition nga dem ba final bo bu rawee coupe de manière symbolique nga yob ko sa sa patrimoine saison 2016 ya gagné wala saison 2017 ya gagné wala yoyu. enveloppe bi wax pour accompagner les ASC parce que xam nañu final dañ ci dépenser lu Donc, tay dama la wax ASC bi dem final ak dem demi finaliste journée rek moo leen séparé benn match te pourtant ki dem demi-finale kenn joxu ko dara te pourtant dépensé na ba demi-finale kon ASC yëpp ay dépensé. te gis nga li ñu leen di jox sax li ñu leen di jox quel que soit enveloppe bi ñu leen di jox tey soo xoolee enveloppe bi ñu jox sur le bu ñu gañee coupe bi la ñu dépensé pour journée finale boobu kese moo ko ëpp. mais nag xel nangu na ni ma la ko waxee que ku gagné am dara. kon ku gagné di nga am dara dara gi moy lan ñu jël ben trophée muy coupe jox la ba paré jël ben enveloppe financière may xaalis yëkëti jox la kooku moom d' nañ ci mais il faut ñu lever équivoque que duñu tok né ben droit la obligatoire li parce que tay jii ni ko la ne amal nañ la bor mën la ne bor bi ñaata la dé xaw ko la ne demba yor na dana demba yor na ma 5000 wala 10000 mais dama nga laaj leen ñaata la len zone yoral mënuñ la ka wax ko loolu lay amu fenn muy ko sukkandiku mais na comme ni ma wax ñun suñu yéne boobu parce que ñun ñoo far ñun and mënu ñoo def bëggu ñu di reculer di dox di reculer dañu bëgg di avancer daaw jek euh football nañ ci ñi dem final waxuma la and waxuma la enveloppe rek mais seen recette match rek dem na ba defena naa deux près de trois cent gagné nañ ko sur le terrain si recette waxuma la nak lañu jëlé ci final bi enveloppe bañ leen jox kon duñu ñu ñëw loolu 2016 la du ñëw 2017 di dellu ginnaaw kon suñu yéene bëgg nañ ko yeggali. Nous ngi commencé la saison samedi bi passé la ñu def suñu premier CD compétition ñoom ñun ak ASC ñun ñoo ñoo samedi passé CD ñun ñoo toogandoo waxtaan gi nga wax ni tegaat nañ ko fa waxtaan nañ fa amul lan sécurité ak euh, arbitrage peut-être faire organisation euh, déjà ñun lañ lañ ñu nangul ñun duñ le contraire ñaar bi ñëwee terrain bi deux mille quinze deux mille seize dañu ñëw fekk terrain bu ñu clôturé am amoon na ay camps yu fa nekk ASC Lac Rose defe naa moo ko fa def ñu leen di remercier au passage aussi parce que terrain bi su amee tamit am na collab partie de collaboration boo xamante ni def na ko si ak aussi en passant le village de Niague. mais les conditions n'étaient pas réunies pour que nous compétir mm-hmm. Mm-hmm. déjà pour que compétir sur terrain terrain il faut que la la commission arbitrage yi le terrain bi mm-hmm. mais l'homologation il faut que des conditions yoo xamante le minimum le terrain de football mën a respecter pour ñu mën ce jongante loolu amu fa Nous ñu gis mairie bi waxtaan nous avons mais nous euh, euh, peut-être ñoom ñoo defar terrain bi war nañ ko mën a équiper peut-être si cadre cadre boobu mais aussi ñu comprendre leen au moins un tien vaut mieux que deux tu l'auras am na lu ñu def ñun ñu ne ñun sa lañ jot si suñu subvention nañ si jéem ñoo jënd ay poteau de corner ñoo jënd tableau de remplaçant ñoo jënd ñoo jënd ay filet ñun ñoo euh, defaraat terrain bi manam lepp lu nga xamantene ne teen yi fa nekkoon ñu sul benn teen bi beneen teen bi ñu defal ko couverture ainsi de suite ba nga xamantene ne conditions de sécurité yi sont réunies pour que ñu mun fa fubal loolu zone 12 si boppam si xaalisam la jëloon investir ko. dégg nga. Mm-hmm. Euh, léegi dans un premier temps on s'est dit comme ñaari zone la ñoo koy utiliser léegi euh, dépenses yi nañ ko partager manam bu si investir 100 par exemple léegi zone 12 na supporté 000 zone 11 supporté na supporté 50.000 zone 11 supporté 50.000 dans un premier temps sax dama ne man ànduma ci loolu xam nga lu ma ah, ñun comme yàlla may na ñu am tuuti koom bu ko supporté nañ ko def jël ko pour que mu patrimoine parce que tey boo ay ay nga jënd ko supposons valeur dañ ko 11 terrain da ngeen di xar file yi dagg tableau bi damm poto yi ku nekk jël genn wàll amul sens kon ñun ñoo nekk ci terrain bi ñun nañ ko jël en charge mu nekk suñu patrimoine ñoom bi ñu fiy ñëw yëpp dañ leen di aal yàlla président Maguette Ndiaye mooy le président de la commission organisation soo demee nga gis ko zone 11 saa yi fi doon compétir moom la doon coordonné ak le président Alsane Thioune moom mooy le président de la commission finance de la zone ñom lañ doon coordonner man de yëguma fu ñu au contraire Maguette Ndiaye jël na xaalisam def ci Alsane Thioum jël na xaalisam def ci pour jàppale euh, organisation bi. Mhm. président loolu leer la seen nawetaanu ren kañ la kañ lay commencé. suñu nawetaanu ren ni euh, euh, ñu japp ko pour l'instant instant ñoo ngi bëgg a démarrer coupe du maire le 3 août au 18 août inshallah

mooy diggante bi aussi terrain bi nañ xam ne booba léegi ñoo ngi siy jéem mairie baa ngi siy jéem commencé woon nañ par mur de clôture daaw ñu am grille de protection mais am na lu des xam nga lu des wax ma ko. lan moo des. ah waaw yow mi nekk si terrain bi kañ nekk waa Niakhou nga xam des xale yi xam nga ne fi ñuy jongante métti na lool. terrain bi kañ li des dafa bari turu terrain la rek. wa waaw waaye nag ma gën nu ñu koy wax ma ko gën ka mu xaw ma ah. ah lu ñu jot am am na ñoo xamante ne suñu naataangoo la te amuñu ko de te am na ñoo xamante ne aussi nekk nañu zone pendant des années amuñu ko ñun zone 12 defe dafa judd fekk benn terrain bu ñu clôturé ba pare. ay yoon ñu def un an ñu def grille de protection yoo xam ne yu mucc ayib la il faut le dire. Mm-hmm. n'est-ce pas kon ñoo ngi def pas à pas ren nag suñu prochaine étape mooy lan bëggoon ñu stabiliser aire de jeu bi parce que aire de jeu bi dafa bëri gan suuf dafa métti pour xale yi computer si pour ñu jongante si dafa métti.

ñi dëkk ci gox bi toog seen biir kër di am di xam li xam ci gox bi parce que man mi peut-être je suis un acteur de la zone de la commune mais peut-être am na yu bëri yu xew yoo xamante ne du ma ko xam du ma ko fekkee wala sama jot duma may ma teewee ko mais su weesoo ma dugg ci seen biir chaîne bi ñëw xool ko nekk au courant de l'actualité de la localité kon loolu dañ leen ci gëm di leen ci encourager euh, ginnaaw loolu aussi gërëm tous les membres du comité directeur de la zone dugus ñi nga xamanteni peut être ñoomu wolu tek ma seen kanam te ñi and aussi di liggéey comme ay mag ak ay rak mu nekk liggéey bu rafet mosuñoo def comité directeur ba mu tas en en queue de poisson mosuñ fe taxaw dañu ne wa comité directeur ñoo ngi ay xeer wala ñoo ngi nangam sangam y a des débats qui lu mu metti metti metti les débats on le met au niveau du comité directeur mu commencé ko si man mi président su kenn ki gëna ndawé gisé né man lama def mom ci gis-gisam du yoon dañ koy may mom mu ñëw tok wax ko ñu débattre ko ba mu jeex tak kon ci cadre bobu lañu ñu mais donc ma remercier aussi les membres du comité directeur si biir franchise bobu mais aussi lu ñu né ko sutaati rek dañ la tingoom moy ASC ñun ñoo ñu boot ñoo ñu l'ensemble des ASC de la communauté de Tivaouane aussi nous les remercions pour leur collaboration euh, commençant jël yooyu dañ ko jaale si les présidents d'ASC parce que wax dëgg on a des présidents d'ASC qui sont très collaborateurs saa ñu leen soxlaa yëkkati téléphone woo leen si la ñu soxla wax dëgg yàlla dinañu jàppale dinañu euh, yombalal liggéey gi ndaxte aussi nawetaan bëri na xëccoo bëri na xëccoo euh, ci fan yu bëri mais lu ci bëri bu waxtané toujours dañ ñu may lool kon loolu ñun contane nañ ci lool lool lool ñu leen ci remercier aussi di ñaan ne comme niñ ko waxee moy suñu sacerdoce moy l'union de de de l'ensemble de la jeunesse de cette commune là ñoom ñëpp ñu jàppale ñu si ba si suñu papa ak suñu yaay yi nga xam ne ñoo nekk si biir koñ yi ñoo nekk si biir quartier yi ñoo nekk si biir dëkk yi imam yeeg olema yeeg ñëpp église beeg ñëpp ñoo ngi leen di ñaan ñu jàppale ñu doole ñoo ñaanal mais aussi xam ne ay ndaw la ñu nekk si gox bi xamuñu dara mënuñu dara.

lu ci euh, dëng ñoo ngi si jégalu bu baax ah, suñu amaatee yeneen occasion muy fii wala feneen aussi leeral yeneen yi parce que aussi mën na susciter yeneen débat aussi c'est c'est sûr aussi su boobaa ñun képp ku ñu invité je je je m'adresse aux ASC képp ku ñu invité sa gox nga toog dajale sa comité directeur ASC e wala sa sa sa sa bureau ASC e wala l'ensemble des membres de l'ASC e sa koñ nga invité ñu ñun le bureau de la zone dinañ déplacé wu ñëw jàkkaarloog yéen si ay questions réponses waxtaan ba ñun ñep parce que ñoo bokk liggéey ñu xamanté lu ñu ki lool aussi nous restons ouverts à tout le monde donc ñoo leen di sant mbokki internet yi kon yéen a ko déggandoo euh, tey ñi ngi doon daral ki nga xamante ni mooy Cheikh gay di président zone euh, dégg nañ leeral yi mu fi wax yëpp euh, leer na nañ mais xam naa ni dañu koy bàyyi mais dinañu ñëw ak moom ci yeneen émission ndax nawetaan dafa yaatu te dañ leen bëgg gunge lépp loo xamante ni lu sikki sàkk la ci bopp nit ñi vraiment bëgg nañu mu leer te li mu fi wax nii vraiment itam lu leer naññ la kon mbokk yi ñu di leen jox dig daje ci beneen numéro